Euh, nekk ci ay yitte moom moo tax tey jii teew fii euh, sama naatango Abdoulaye Bopp aussi ñu ngi koy siyaar bu baax a baax moo it waroon na fee teew waaye ay yitte moom moo tax tey jii euh, munu fee teew waaye nag ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ñoo leen fi wuti muy ci mel nii Adama Ndiaye moom moo féetewoo tey ci wàllu xarale gi ak suñu xarit suñu mbokk Rahim Lo moo féetewoo ci wàllu digital moom it ñu ngi koy sant ko gërëm bu baax a baax ci loolu ni ma leen ko waxee woon keroog rek mooy que xam ngeen ne dafa am waxtaan yoo xam ne dañ ko seq ay ndaw yoo xam ne ni dañuy xeex ci lépp daal xam mu ngi jëm ci wàllu ko violence faite aux femmes euh, wàllu si wàllu wàllu violence ak yeneen yu ni mel euh, tey ji nag mooy doon seen altine bu mujj mu nekk nag loo xam du ma neex lool parce que bu doon sama soxla ay altine altine dañ fi ne su ko defee ñuy waxtaan ak ñoom ci lépp loo xam daal fitna la ndaxte bu ñu waxante dëgg aussi fitna dafa doon loo xam ne ni baaxul ndax yàlla da ko rëbb euh, moo tax ci plateau bi maa fi nekk ki nga xam moo di Serigne Modou Mbacké Niang Serigne Modou Mbacké moom mooy njiital RENPES nekk fekk ki nga xam moo di Ousseynou Ndour Euh, tey jii ñu ngi xamal dafa am gàllankoor waaye fi wutu mooy euh, Assane Diagne moom mooy njiital toit du monde ak it ki nga xam mooy Oustaz Elimane Diagne waaye tamit ci wet wa ña ngi fa nekk soxna Khadija Talla euh, ñii daal ñoom ñoo nekk tey ci plateau bi ñu war waxtaan ak ñoom ba tey ci projet bi nga xam ne ni moom lañu am mu am mu nekk ab partenariat goo xam ne dafa dox seen diggante ak groupe bu Walfadjri ci loolu ñu jox kàddu gi jox ko Serigne Modou Mbacke mu nuyoo Serigne Modou Mbacke ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Seydina Omar ñu ngi lay ziar. Euh, di leen remercier encore une fois ak sa disponibilité euh, di wax rek euh, comme ni nga ko waxee ci sa njëlbeenu kàddu rek bëgguñu woon mu jeex. Mm-hmm. te incha allah on va essayer de voir xool ko partenariat bi nan lañ koy continuer mm-hmm. pour que l'année prochaine ñu mën a ñëw yee ndaw ñi yee waa Sénégal. ci lépp li nga xam ne ni rek mi ngi aju ci violence yi mhm. waaw ñu ngi lay remercier encore une fois te xam naa ne partenariat bi du yem du yem fii rek dëgg la euh, jërëjëf sëriñ Modou Mbacke ñu ngi koy sant di ko gërëm ba tey ci plateau bi maa ngi fi nekk oustaz Elimane Diagne oustaz maa ngi lay nuyu salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu Seydina ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Walfadjri yëpp euh, di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ziar ma bokkal plateau bi ku mel ni euh, sama sëriñ sëriñ moom Mouhamadou Moustapha Mbacke ak sama beneen sëriñ bi sama soppe Assane ñu ngi lay nuyu di nuyu Khadija ak ñëpp ñi nga xam ñoo nekk ci digital bi ak ci réalisation euh, tey jii aussi ñu ngi fi nekk ak Assane Diagne tey moom moo fi wut Ousseynou <laughs> moom mooy njiital Toit du Monde Ousseynou ñu ngi lay Assane ñu ngi lay nuyu Ousseynou ak Assane xanaa ah, ñoom lañu quoi sa <laughs> kilifa la <laughs> ah, ah. al imam imam 2.0 macha allah <laughs> euh, jërëjëf jërëjëf Assane ñu ngi koy sant di ko gërëm le temps que sax Assa euh, euh, DJ réglé nañu micro am Serigne Modou Mbacké dañ koy tàmbali d'abord ci wàllu actualité ah. Mm-hmm. parce que mënuñoo commencé te waxuñu wàllu actualité. Mm-hmm. donte le dañuy faral di wax waaye loolu dafa bokk ci violence moom sama gis-gis. Mm-hmm. te mooy rapport yi nga xam waa Cour des comptes becc nañ ko. bu wax ne ne dafa am ay détournement yoo xam dañ ko nemmeeku. Mm-hmm. Euh, ci wàllu Covid 19 bi. Mm-hmm. ndaxte euh, xam nga feebar rek. Mm-hmm. daanaka mun naa xam ne ne même bu violence tamit mais fitna la. du jàpp ci doomu aadama. nga tëj ay doomu aadama toll si ñaari at. ñëpp mobiliser wu jël seen alal dugal. mais en contrepartie ñu xëy bés dégg ne. lañ leen doon. kaara maanaam lañ leen doon tëj yëpp am na ñu mhm. nekkoon ci ginnaaw wax dëgg yàlla mhm. euh, di détourner xaalisu xaalisu askan wi mhm. loolu bu fekkente ne nit ki dégg na ko ci biir këram mais am na ab haine guy nekk ci moom te haine googu aussi mën naa produit ëllëg mu nekk benn benn genre de violence merci Seydina Omar ci question bu am solo bi nga wax euh, xam nga tey euh, boo na Covid rek ñëpp seen xel day dem ci lu metti ndax tey ñu ngi jaale waale ñi nga xam ne nii seen bakkan rot na ci ak euh, ñi nga xam ne ni tey feebar bi dalal na leen ba nit ñi di leen boddi xam nga violence bi njëkk a def rek mooy boddi bi mhm. parce que ku ñoon ne kon amoon nga corona rek mhm. dañ lay stigmatiser seen koñ kenn du fa jaar mhm. seen kër kenn du fa jaar ñu lay daw loolu rek violence loolu rek mën nañ la violence physique la comprendre nga léegi problème en même temps bu nga gisee nit ñi xale yi génn ci ci ci ci ci mbedd mi lépp boo ko gisee violence bi ñoom dañ koo xamutoon. Mhm. xamuñu woon tëdd ay vingt heures mhm. ensuite violence économique moo amoon ñi nga xam ne ni mënatuñoo jaay ñi nga xam ne nii am nañ problème pour dundal seen seen i waajur mhm. am na ñi nga xam ne nii fañ doon liggéey dañ leen faa dàq ndax ndax ndax ndax euh, Covid bi. ak ñi nga xam ne dañoo mobiliser seen xaalis. ñëw indi ko ku mel ne euh, Serigne Mountakha. ñëw indi 200 millions teg ci table bi kon ñooñu ñi ngi ne woon ah liikat gëmoon nañ ko. kon ci askan wi la jëm. waaye suñ demaatee ba ci àgg gis ñi nga xam ne ni tey ñoom lañ mobiliser woon jox leen xaalis boobu noonu ñu koy jël ñu ko yóbbu ci yeneen fin vraiment loolu day doon lu doy waar te loolu mën nañ ne kon euh, ni ñu ko mën a waxee mooy dañoo tas yaakaaru askan wi askan wi hmm. waaye li may wax rek mooy képp koo xam ne nii jël nga alalu askan wi hmm. def ko ci leneen loo xam ne nii waroo ko ci def na yoon def li yoon yoon na wane boppam képp kuñ ci tudd ku ci laale yoon yoon yoon yoon yoon yoon def la pour que sénégalais yi am que dañu dem ba yoon sax dañ ah mm-hmm. benn confiance ci yoon. parce que gis nañu y'a beaucoup xam ne jaar na fi. Mm-hmm. ñu mm-hmm. bu ñu demee ba nga xam ne ni sénégalais amatuñu benn confiance ci seen justice. loolu mën naa créer benn forme violence boo xam ne c'est extraordinaire. parce que xam nga tamit euh, dafa am ñaari pàcc xam nga àdduna bi moom mooy demee noonu xam nga li may wax léegi rek mooy képp koo xam ne ni li li yoon li mën a def pour que nit ñi mën a leer corona bi dafay jaar metti lool. Mm-hmm. képp koo xam ne tudd nañ la ci nga ñëw devant euh, dem justice justice leeral affaire yi pour que sénégalais yi mën a gën a amat confiance mm-hmm. parce que instant bi nii fii lañ ko fii lañ mën a dabawaatee. am confiance population bi gérer li ñu war a gérer une bonne fois pour tout bu ko defee ku nekk xam ne justice kat nekkul fi ma sàmm nekkul fi ma dem. Euh, effectivement comme ni nga ko waxee ah dafa mel ni que Sénégal dafa nekk benn dëkk boo xam ne ñaari société ñaari ñaari ñaari as ñaari ñaari citoyen moo fi am mooy citoyen boo xam ne nii dañ naan ko sàccal waaye dara du la ci fekk ak citoyen boo xam ne dañ ne ko day bàyyi leen ñun ñu sàcc yéen ngeen di muñ ngeen di muñ maanaam ngeen féetewoo muñ bi maanaam tey ji wax naa ko sànq tey suba maanaam yokk njëg yi dañ ne citoyen bi na ko muñ mais bàyyi ñu ñuy sàcc euh, bu fekkee aussi dañu ne euh, problème mu euh, ak ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire mu mel daal Sénégal daal ñaari sus ñaari yi moom moo fi am loolu bu ñu demee ba après toll foofu man la may ragal mooy mu jur loo xam ne nii bu ëllëgee kenn ku ne suñu dana matt baaraam wi cax waaw ni nga ko waxee moom noonu tam la ko la ko islaam gisee. Mm-hmm. yonent bi sallallahu daan wax ne Euh, du ngeen nekk ci jàmm hmm. fii ak du ngeen àtte woo ci dëgg hmm. àtte bu maandu hmm. nee réew mu àtte bu maandu amul jàmm du fa am te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ci tegoon ba nga xamante ni bii dafa daan waat ne wallaahi Fatima ma jur bu yoon waroon tegu ci kaw ma teg ko ci te moom maa ko jur pour wax ne réew noonu la war di doxee mais dafa wax ne Euh, mu ne réew mu ne na ngeen mel mu ne njiit yu mel noonu ngeen di am. ne réew mu mel. Hmm. njiit yu mel noonu ngeen di am da xool ci ba ci bas de l'échelle fi gën a ndaw da ngay jox te gis nañ ko ci Covid bi ay nit yu ñu joxoon ceeb pour ñu dem séddale ji. waaw ay relais communautaire c'est ça ñu dem bind seen yaay bind seen tante bind seen bàjjen bind seen umpaañ ci benn kër au benn paar dugg fa cinq part dugg ci kër. cinq te xam nga loolu autorité baa ngi ca kaw. Hmm. nga gis ñu ne nañu bind nit ci bourse sociale yi ngay gis ko doon bind fexe ba keneen ko ca bokkul du bokk ci donc niveau bu mu mënti doon ci ci ci ci ci échelle bi ña fa am na façon magul bu ñuy magul donc loolu li li koy wone li muy wane mooy ñun suñu réew suñu société moo feebar te réew nag bu société bi feebaree te feebar bi gën a garaaw alxuraan bi mooy feebaru xol te feebaru xol mooy gëm yàlla te bu fekkente ni bu may lekk xaalisu Assane duma xalaat ne moom dafa war a dundali njabootam àq dina ma ci fekk mm-hmm. bu may lekk sa oto duma xalaat ne yow di nga war a xëy dootoo xëy ñu mën la dàq mm-hmm. yooyu yëpp ngëm gu manqué moo koy indi mm-hmm. bu amee société maanaam kon fondement bi ma lañu la ñu faussé yàgg na yàgg na bi nu foosee suñu fondement dafa yàgg parce que ñaar yi tabax société société dañ koy tabax ci ngëm bu fekkente ni diine la wala ñu tabax ko ci ay valeur te ñaar yëpp dañ ko perdre amatul ay valeur mooy jomb rus naa def nangam ñu koy dégg-dégg rus naa wax nangam ñu koy dégg damay jox benn exemple toujours boo xamante ne bi damay dem di di damay dem bitim réew ma ñëw tàggu sama kilifa ne ko damay dem bitim réew mu ne ma euh, booy dem ma ma ma yab la bi may dem ma ñëw wax ko ne ko damay dem mu ne ma diggante lam-lam ba Tiwaawoon ban garab nga ëpp loo fay gis ma ni ko garabu kóoni mun ma lu tax nga ni kóoni la ma wax ko ni mu mel mun ma fa nga jëm boo fa gisee garab gu mel noonu noo koy tuddee ni ko kóoni mun ma gis nga kóoni mm-hmm. sori ay mbokkam du ko teree doon kóoni mm-hmm. jege ay mbokkam du ko dee toon du ko teree doon kóoni mm-hmm. bu bu mooy fa nga jëm boo fa gisul nit ku ñuul gisoo fa sa nawle gisoo fa kuy làkk olof gisoo fa sa mbokkit xamal ne li nga doon jomb fii jomb ko foofu bu société nag demee ba amuñu valeur amuñu croyance mm-hmm. amuñu ay plate culturel yu dëgër amuñu dara société boobu fu mu mënti egg ci lu leen di alag leen ci la alag leen jëm euh, mooy li doy waar ah, c'est que Assane euh, fi ma bëgg a dugg ak yow mm-hmm. cest di que dañu waroon a tollu fam comme ni ko waxee dañu waroon a am lu ñu waroon a jaay maanaam ay valeur yoo xam dañu ko waroon inclure ku ñuy xale mm-hmm. Euh, tey jii damay xalaat ne tey jii ba ba ma déggee détournement sama xel dafa daal di jëm étudiant bi nga xam moo nekk euh, université wala élève bi nga xam moo nekk école euh, mu mel ni que au delà de détournement yooyu le ñu ngi nekk di jàngal suñu xale yi ne leen ne Sénégal pour nga mën fee teg il faut nga doon sàcc ka waaw en fait au lieu de valeur dafa mel ni ay contre valeur la ñuy la ñuy promouvoir et que mm-hmm. c'est ça un peu le danger mm-hmm. imam wax na ko sous l'angle un peu de la religion xëy na ñu aussi mën nañ ci am jàngat un peu du point de vue juridique mm-hmm. euh, c' est dañu nekk ci état de droit mm-hmm. état de état de droit boo ko déggee maanaam mooy mm-hmm. képp ki xam si doom doom nga ci ci réew mi nga nekk bokk ci askan bi c'est-à-dire ñëpp dañoo war a yem que nga doon doomu baadoo la que nga doon doomu kilifa ak que nga doon ku am ndomba tànk ak ku ko amul ñëpp dañoo war a yem devant la loi la loi elle la là général est générale et elle est tëgguñu ay loi pour ma sàmb wala pour ma dem ñëpp ci war a yem et puis ñu comme ni ko sëñ Modou waxee ñu dund lu metti dund lu jafe parfois da doon toog ba xam si ay nit da nga leen doon gëj a a dégg mu leen nit ñi nii yaa ngi wax valeur nit ñu am valeur la ñu mais da ngay jeg ba si yàgg nga dégg ku la envoyé message wala ku la woo ah. mais li mu lay woo yëpp mu ngi wër wërlu da nga xam ni après yaay yaay capté ni kii lan la la bëgg a wax hmm. ah te foofu boo fekk na fépp metti fépp fépp fépp moo metti kon mu leer na ni kon euh, am na nit ñoo xam si jonkonte nañ ay ay jafe-jafe yu metti mais su ma su ma su dama lire rapport bi j'ai été tellement écœuré affaire bi dafa ma metti tellement parce que dama doon xool ni situation yi ñu doon dund jamono boobu noonu ñaata nit ñoo fi ñoo fi bàyyeeku ndax manque oxygène masque ah ñaata nit ñoo kii ndaxte am nañu problème mu génn mu tombé ak koor nit ñu am ay jafe-jafe sax pour jënd lu ñu ndogoo wala wala wala am lu ñu xëdd yow nag maintenant ngay jaabante chaque deux jours ou bien chaque trois jours nga génne lu toll ne cent millions mais xool leen cent millions xobbet comme ça liquide liquide amul benn facture ah, non mais c'est très compliqué amul facture amul a rien du tout xam nga bu fekkee da nga dañ lay jox pour que yow nga xam nga rek ay entreprise nga nga adolé rek dafa war a am compte à compte firma firma de crédit dëgg est-ce a mais lii mooy violence nag non mais en lii dafa jël lii mooy dëpp ki parce que dafa jël violence yu bari <laughs> mu boole ko ah. parce que boo moo wax violence économique violence morale violence psychologique ah, ah, et psychologique yu bari la boole taxañ ko parce que dafa métti ci xol maintenant nag cette fois-ci il faudrait que li ñu naan le culte de l'exemplarité mu feeñ parce que yaa ngi doon waxal sànq am na ay rapport yu ko jiitu ah ñun ñoo dégg ci làmmiñu président mu ni yenn yi moo ko def si kuddam cette fois-ci nag vraiment ñoo ngi xaar ci moom ah, parce que y a des recommandations de la Cour des comptes yu wax ni yii kat ñoo ngi demande à ce que le ministère de la justice mu mën a ubbi une information judiciaire parce que aussi il faudrait que ñu fàttali ni Cour des comptes du àtte mhm. Cour des comptes dafay gis ay looxoor dafay gis la xam si nee lii li waroon jaar jaaral yoon mu def ay recommandations mais il appartient vraiment à la justice que ñoom ñu mën a ubbi information judiciaire pour mu ay ay topp bu ñooy leeral parce que am na ñenn ñenn ñi seen biir ñoo xam si commencé na ñoo

<laughs> vu li fi passé yaakaar nga ni leer dana am. non non c' est juste que c' est pourquoi et que juste là en même temps acteur de la société civile là. Mm. c' pourquoi cette fois ci nag ñuy xaar ci ndey mbilli gi. nga xam moom mooy président de la république mu mën nag ni cette fois ci du ma protéger kenn na ñu ñu mu wax ministère de la justice ministère de la justice wax procureur procureur ubbi information judiciaire ñëpp ñi xam si laal tudd nañ leen ci rapport boobu ñu mën leen ñu a woo justice violence psychologique bi ñu doon waxtaanee keroog. Mhm. parce que lii imaginal tey ji sénégalais yi nga xam ne leen tëjoon. Mhm. ni ko ju euh, euh, Assane waxee nga tëj leen. plus de deux ans amuñu lu ñu lekk amuñu ñu naan. Mhm. ñu gëm ne ne presque feebar moo fi ne. d' abord gëm nañ ne ndekete feebar bi ñu doon ko cotiser. ndekete dañ ko dañ ko jaay léegi a ne. xam nga ñun euh, ñun dañoo risqué suñu vie. parce que tey bi kenn nangu te ñun société civile dañoo engagé wu dem di wut suñuy masque di ko joxe di sensibiliser waaye tey tey gis nañ ne tey parce que tey boo ñëwee ci dëkk ñu ne lii am na ñu ne amuñu dañ doon jéem a conscientiser mhm. la population wax leen ne leen pour ñuy moytu distanciation sociale yi ñu koy def mhm. rien que ñun ngi ñi ngi ñi ngi ñun ñi kenn nangutoon a génn mais ñu ngi doon génn di dem di sensibiliser nit ñi xam nga loolu dafa grave mhm. en même temps tey imagine noonu tey koo xam ne jëkkëram ci la génn bàyyi ko ay njaboot yu ndaw moom am problème dépense tey mu ñëwaat déggaat lii psychologiquement day am problème forcément forcément psychologiquement day am problème loolu violence la. pour ngàdd <laughs> non c'est kay gën ko kon violence yi dañoo dañoo dañoo dañoo bëri. dañoo bëri ay façon du question dóor rek. Mm-hmm. du question nag dafa bëri. Mm-hmm. Mm-hmm. violence sociale lii économique la. te te te te liñ ci xamul mooy que dafay dem ba pousse actuellement nii population bi. révolté oo révolté wu. dafay pousse dafay créer xam nga lu tax parce que tey ji bu ñu ba nga xam ne gis nañu léegi am am réew mi dafa am benn dafa féetewoo benn côté. dafa féetewoo benn côté am na nu muy demee dina gis population dina gis nit koo xam dafa jàpp ne kat pour mu mën cee génn il faut que mu xoolal li am bërki dem mbuur benn waay bu dugg ci benn multi service jël pistolet fa ñetti nit ndax lan ndax lu mu doon ut am am am bu mu doon ut gis nga li ngay wax dafa nekk euh, dëgg ba mhm. damay waxtaan ak euh, sam benn xarit mhm. euh, ci benn tudd tuddam mhm. war na def ay weer si ginnaaw benn waaye fa nekkoon daal mais ñii li ñuy def bu dakku mu ne jour boo déggatee ni problème sàngam am na ba nit ñi génn mu ne day fekk nit ñi ciblé nañ kenn ko ne secteur bi nga dëkk benn nit man kat au moins écran plat kër diw am na écran plat te ci nguur gi te wóor na ma sama xaalis la ko jëndee bu problème amee écran plat laa jël kii ne man amaguma woon salon mm-hmm. te wóor na ma te da lay wóor ne ci sa xaalis la ko jëndee parce que ci diggante bu matul dara ci diggante bu matul dara mm-hmm. yéen a doon toogandoo parfois yaa koy may paas mm-hmm. nga ñëw lu soriwul dara moom mu mën la may ba mayaat la ngay ngénte mu lay jëndal xar ngay ne ci koñ di may tas nga di ko waaw muy may ay paasu masque xam nga xam nga dafa am benn benn film bu ay africain joué mhm. si dette bi Afrique amee Europe Europe bu tudd Bamako mhm. du publicité mais damay wax tout le temps ne acteur société civile yëpp war a seetaan film parce que film boo xam ne dañoo ay Aïssata Tall Sall yi. Mhm. ñoo ko joué. Mhm. ay ah, ay ancien nangam en tant qu'avocat mais ci mhm. benn film si si biir film day benn day am benn benn waay bay wax ne léegi mu ne dañu egg ci euh, monde foo xam ne biir Mali. mu da ngay dox di nga fi dajeeg lu ne ba mu des Malien. parce que nit ku soluwul solu bu baax. lekkoo ba suur. naanoo ba en fait ñun yi ñu xamoon yëpp. Mhm. Assane mhm. amatuñu ko. day commencé te yooyu loolu moo ko indi xam nga réew kenn du ko def ci ay lambatu. lambatu mais kenn du ko def ci injustice. justice bi nag même bu fekkente ne tey dañu woon charia doxu fi nañ ko teg ñële mais loi moo fiy dox loi bi fiy dox dañ ci war a yemale ma sàmba ak ma demba. bañ am impunité daal mu du loolu loolu benn la si du am impunité. Mhm. mais beneen bis mooy tey. xam nga responsabilité doomu aadama gis nga gis nga Ousmane Ibn Affan bi mu nekkee euh, xalifa bokk na ci li ko daaneel. Mm-hmm. dañu bind benn lettre boo xam ne ci lettre bi dafa am koo xam ne dañ ko buur la woon ñu ko. Mm-hmm. ci lettre bi am mm-hmm. ñun ci reylu ñu nit ñëw ne ko yow lettre nooy bindee lettre di reylu ku yonent bi tegoon fii ak di wàcc mu ne ma binduma lettre benn waaye ne ko ah. c'est une belle occasion. boo bindee lettre bi da nga lay wàcce parce que waroo wàcce ku yonent bi yéegaloon. Mhm. bu dee bindoo ko nag sàggan nga ba ñu jël sa cachet di ci jàpp. parce que ñun ko sa responsabilité moo nga parce que tey li li Assane wax. sa signature ma nga ca ma mm. tey ay nit. Mm-hmm. manqué nañ oxygène ba dee. Mm-hmm. ay nit xuloo nañu ndax manqué ay masque ay nit dem leen di suuli nit ñu agressé leen fa. Mm-hmm. gis nga ñooñu ñëpp yow mi lekk xaalis. sa responsable dafa engage te dañ lay atte yow mal xëyaam atte ku rey nit parce que da nga bokk ci ñi rey nit mais au delà de ça sax mais force de l'ordre yi nga xam ne luy déployé ñun ñëpp sa ah. responsable day engagé ay force de l'ordre yoo xam ne dañ leen leen déployé yu dëgg ci dëkk bi di ramasse di yàpp ay nit di dóor loolu loolu loolu loolu dafa garaw euh, Assane. <laughs> loolu aussi bokkoon na si li ñu xam si ñun bokkoon na ci. parce que au delà de au delà au de feebar bi. Mhm. amoon na benn violence bu mu àndaloon. parce que man gis naa ay nit ñoo xam ne nii mhm. doon jàpp nit di leen dóor. mais exactement parce pourtant dañoo xëyoon rek liggéey xaw guddee wàcc. c'est ça c'est ça mhm. xam nga dañu doon wax dañu doon la Covid 19. ñun bokkoon na suñu euh, combat si riposte boobu noonu. Euh, ni ñu doon violenté heure yooyu noonu da nga daan xool rek day mel ni film day mel ni cinéma nit ñi sax di ko di ko di ko tiktok pourquoi parce que bu heure bi jotee nga gis ni ni ñuy daw ni ñuy dawee quoi mu leen la ni aussi quelque part ñoo ngi final askan bi quoi euh, et que incompréhensible ñëpp xam nañ ne guddi en tout cas ku mel ne man moom aw ma soxla ci biti et dafa meloon ni kon virus bi bëccëg kii du dox bëccëg mais guddi gi lay lay lay lay daw ça c'était mm. incompréhensible mm. te finalement dafa mel ne dañ doon noot askan bi di am fu ñu leen di bëgg bëgg bëgg bëgg embarqué mm. et puis mu amoon aussi ay d'autres privilégiés xam si euh, ils avaient la prérogative de sortir parce que affaire yi nga fiy dégg yëpp ci yenn coow yi ah am na ñu fi tëjoon ci affaire de am na ñu fiy dégg naan histoire aji saar nangam nangam su ko yenn yenn heures yi daf naa ne bu même bu fekkee ni euh, may nañ la nga am nga bokk ci ñi ñi ñi ñi am ñi ñu war a génn mm-hmm. na fekk li lay génne méngoo ak sew sa wàllu liggéey mm-hmm. mais juste parce que juste rek privilégié la nangam nangam bu dee journaliste on peut comprendre mm-hmm. su dee force de l'ordre on peut comprendre su dee médecin wala wala infirmier on peut comprendre mais je peux pas ma ni ma parlementaire là ou bien ma ni ma ma avocat là sama liggéey euh, euh, heure boobu noonu xëy na bi ma doon génn nekkul sama liggéey moom a génne c'est-à-dire que à ce moment bokkutoo ci loolu tu ne plus partie de de de de de de mm-hmm. violence doon teg askan bi aussi mm-hmm. tey bu ñu ñëwee tey ba ci cëppaandaw gi ñu ñu fekk lii aussi. daf may daf daf may jafe daf may daf may pose problème. am na leneen lu ma pose war problème. oui et que c'est c'est vraiment pas de la politique. Euh, je ne fais même pas partie de la politique mais parfois damay ko du ma comprendre euh, je je me suis la question et que ñëpp dañ ko doon xam surtout ñun ñu dëkk Thiès. Mm-hmm. dañu doon catégoriser ni ñu nitu Thiès. lan moo ko indi woon parce que à l'époque euh, l'ancien premier ministre Idriss Seck dafa ne woon ni. bi muy bi ko président recevoir dafa ni woon ni dafa ni woon ni ndox muy faytaal kenn du ko kenn du ko segg. du ko segg. waa léegi tey su ñëwee tey ba am loo xool yu toll ñu koy gis ay rapport parce que est-ce que jëluñu jëloon nañ la peine. ñu respecter les règles respecter les procédures. ce que maintenant li cour de compte est-ce que ñoom duñ toog aussi xool seen part de responsabilité. je me juste des questions. Mm-hmm. parce que yow yaa ni woon ndox buy fay taal kenn du ko lakk parce que gis nga de yaa urgence effectivement y avait urgence mhm. mais urgence urgence dafa tax aussi urgence boobu noonu ñu mën ko jaarale dans les règles et mi nga xam ne yow yaa président de la République aussi nga jiite ñëpp mhm. nga nga nga nga signé ni dañu nekk état d'urgence ah ni da ngay gérer par ordonnance xëy na ci biir biir période boobu noonu ndegam période boobu noonu après juste bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko topp bi topp ci moom ci la génne lu xool yooyu aussi. exactement loolu laay wax ni justement hmm. kon kon erreur yooyu noonu damay jàpp aussi est-ce ñoom seen part de responsable nekk aussi kon buñ demee na ba ba ba ba bañ génnee cour des comptes c'est c'est c'est vraiment une institution très sérieuse dans ce pays là. kon ñoom war nañu mën a xam seen responsable. au-delà cour des comptes avant maa ñëw ci euh, sëñ Modou. Mhm. mais récemment dafa am kenn seen i député. koo xam ne nee nañu moom mooy géwélu président Macky Sall. mais dafa dafa def benn affirmation boo xam dafay wane ne ñun effectivement ci nguur gi nekkoon ci lu ma di sàcc. oui parce que loolu mu wax noonu tey jii bu fekkonte ne dañ nekk ci benn état bu sérieux la waxuma la sax moom mais président Macky Sall sax day wàcc. parce que munoo jékki-jékki ab premier ministre taxaw nga naan ko yow am na fa ma doon jaar ak yow. c'est te def naa ko wax naa ko keroog benn ministre fi waxul. waxul kon c'est-à-dire que nekk ci état boo xam ne dañ lay jox ay mallette ngay wër ay nit di leen koromp. a dit je l'assume te bu nekkoon ci état bu sérieux mais boo wax dëgg. ak lépp ma si ko rafet je c'est ça veut dire que ni niveau de. xaw ma nu ma ko mën a qualifier mais dafa sax c'est une aberration en fait. parce que bu ñu demee ba ci réew mi non yëpp askan wi la donc kon loolu aussi dama jàpp ne ñoo ngi violenté askan bi ci façon ba xam si bu jéggi dayoo mhm. te li imam doon wax sànq malheureusement foofu foofu la ñu jëmee mhm. et on le souhaite pas si y avait si s'il y a des da ngay gis gars yi ñu ci commencé ciblé naan diw diw diw diw te waruñu yegg foofu il faudrait que nag balaa ñuy foofu ne ñun ñun si bi dañuy alerter waruñu yegg foofu kon baax na tey ñi nga xam ñoom ñoo ngànk réew mi ñu mën a sévir xam nga pour wax la li li nga wax sànq ma wax ko euh, mooy que gis nga euh, Macky sàll ba ñuy jamono lay Wade ba ñuy voté car bloquant bi yàlla dafa dogaloon man maa ngi woon biir assemblée nationale euh, député Moussa Sy moom laa dégg mu wax ne ne yéen a ngi fii di voté mais loi bii boo leen ko watee ñun ñëpp suñ kër daañ ko taal kon c'est-à-dire que lii ñuy def nii tey jii jël alal réew bi di ko di di ko yóbbu dañu dem ba toll foo xam ne ni population bu ñu bëggee am seen soxla bu koy faj dañuy dem seetu ji waa ji nekk ci koñ ba di politique wala nekk ab ministre wala ak dig sisidi dugg këram dajji ko yóbbu yóbbu la fa ne parce que dañ dañ jàpp ne seen alal bopp la parce que xam nga imaam wax na ko léegi nii gis nga ay valeur bu nekkul ci yow wala booy wax doo xalaat loolu neex mën nga koo wax nit ki dafa am ci ay valeurs yoo xam ne nii bu dee